dugg ci dossier yi waaye mission bi nga xam ne ni moom mooy waaj a ñëw dana dem ci service yi amal fa ab nemmeeku ak seetlu na nga xam ne ni moom la ñu defee gestion trimestrielle balaa rek ñoo mun a def ay projection macroéconomique kàddu yooyu nag ki ko yëkkati woon di Mesmin Coulé Vico di représentant FMI fii ci dakaar ginnaaw bi nga xamee ne amaloon nañ ab ndaje ca Washington diggante expertu Fonds monétaire international yi ak ministre sénégalais yi yore lépp jëm ci wàllum am économie ak coopération ci ndaje boobee FMI dafa laajoon nguuru Sénégal mu xoolaat budget 2024 bi loole nag li ko waraloon mooy prévision yi nga xam ne defoon nañ ko ci budget bi ci loi de finance bi dafa mujjwul antu ndax ci document de programmation budgétaire bi nga xam ne ñu ngi ko publié woon ci atum 2022 li ci fësoon mooy Sénégal dina jot a dajale lu toll ci 888 milliards ci suñu ay koppar mu doon ay recettes yi nga xam ne ñu ngi soxee ko ci exploitation pétrole bi 2025 waaye nag retard bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci exploitation pétrole bi tax na ba prévision yooyee mënul antu loole waral ñii di waa FMI di ñaax nguuru Sénégal ñu xoolaat budget bi nguuru Sénégal itam ci benn moom tam dafa leeral terme yi nga xam ne moom la nar a négocier ci ay partenaires de développement yi ba pare fësal ni lépp lu jëm ci contrat minier danañ ko renégocier waat ci jamonoy jiixi jaaxa boobu nag la ñii di waa FMI nar a terse fii ci programme bi nga xam ne nguuru Macky Sall signé woon na ko ak kuréel bi mu ñeel 2023 2026 te waa FMI naroon ci décaissé lu toll ci 1150 milliards ci suñu ay koppar ndax nguuru Diomaye day wéyal programme boobee wala lépp la ñuy dakkal tàmbaliwaat yeneen i négociation ñuy sampaw laaj waaye laata loolee audit yeeg renégociation contrat yi loolee moo ëlëm compagnie pétrolière yi nga xam ne sumb nañu exploitation pétrole bi ba tax ñoom itam di xamle ne diggante mission d'audit lay doon te su moytuwul dana gën a yéexal exploitation bi lee ndax nguuru Diomaye mën nañu nangu retard boobee donte sax borub Sénégal mu ngi yéeg ba soixante-dix pour cent te itam njëgu dund gi di gën a cher ci askan wi loole itam ëlëm ñu bëri ak lu ci mënti am ñii di waa FMI moom ñu ngi ñëw ak seeni koppar ak seeni digle nguur gu bees gi nag war a dëggal boppam te itam bañ indi yeneeni problème